أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله مصدر من ماء مهين وقال سبحانه وتعالى سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين القاري في سنة المكفرة خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهله صدق الرسول العميد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين ومن تبحث إلى يوم الدين وبعد فإن الإنسان اجمعين بتبعه لا يعيش إلا في وسط المجتمع يفتر به ويتفاعل معه الكبر يرقى إلى أعلى الدرجات يكون مع الأنبياء والصديق والشهداء والصالحين وبقمعه عنها ينزل إلى أسفل السافلين فيسير 嗯。 Sadri ak Yahudi mooy Israël problème boobu la di problème boo xam ne dafa yàgg Yahudi yàlla leen di dee tooñ ñoom ñoo rey ay yonent yi નો પૂર્વ કિલોમીટર આગળ દેવો પૂર્વ કિલોમીટર આગળ દેવો ટ્રેસ આપણે એક ટેબલ ઉપર દેવી કે છે ન કરો ડૂસ એ મસ જે દેવી કરતા દિમાગ જે suba mooy premier école liman ba ñaar fukk ak jigéen ñi solo nañ si kër yi jigéen ñi si foot bi jigéen ñi si togg bi jigéen ñi si matt bi jigéen ñi si leer góor yi yàlla rek naka noonu tëdd ba jant naka noonu jiitu ba jant ba gën jóg nag dangay say naka nonu juroom ñaari si wolo negi te wolo geñam ak ñeen juroom ñaari dafa am nga jëndel am yeneen juroom ñaar si wolo nampal wolo ko na ci moy sa yaay ko nampal jigen bu nga xam ne ko mu nampal boo ko demoom doom nga সময় 那个。

hip hop métti mais yaram yëngu ñu ne yëngu ma dem mën a liggéey te mais ku nga mais am na ay nag njëriñ mais am na fu mu lawee njëriñ mooy lan jàppalante bi ñuy jàppalante si kër gi si yar doom yi naka am na ko mu ngi tukki doomam yi ay fenêtre la Pedra, você lembra? ñàkk amal yàlla ñàkk la ñetti yàqu-yàqu yi gis naa ko dina la ko te am na lu ko gën sa alal na yàq parce que ak de mariage ak numéro wala papier de mariage ak numéro noonu dem na ba benn buuri France bu ma demee ba bàyyi église bu ma demee ba bëgg am beneen soxna ba bàyyi parce que église na ma leen est ce que loolu si diine Isa la du diine Isa ñoom ñoo ko passé si ñoom soo demee nag moom mooy mun nga am ay soxna nga am ay cox nga am ay te coor ak ay can get down jigéen yi mag yi ndaw yi soxna yi papa yi yaay yi am nañu seen yaakaar naka